julli ci sangu sangu yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yëkkati ay kàddu tàmbaleeku ci nuyoo muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala kàddu yi ñu yëkkati mu ngi jóge ci ki nga xam ni mooy njiitu réew son excellence Monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal mu yebal ñu fi tey ci délégation bi ñu lim léegi nii ci li nga xam ni mooy trente et unième édition bu gàmmu Daaru Gaïtane bu suñu kilifa suñu wëllëre sëñ Ahmadou Gaye yal na yàlla yokk leeram ba mu tëdd président wax ni bu ñu ñëwee ñu jël kàddu yu sell ak ay diyo yu sell teg ko ci loxo yu sell yu sët sox doomu soxna yi fi teew te seen soix yi buuf Mbàkke wax léegi ci seen tur ñoom ñu jël nuyoom yooyu teg ko ci loxoom ñu jottalil ko képp kuy xalif général fii ci biir Sénégal muy Serigne Mountakha Bassir xalif général des Mourides te mu soxe ko ci moom ak ki nga xam ni mooy seen Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes ak xalif généraux yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal yëpp président wax ni li ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu ak mu jot ci waxtu wi tant bi ñuy tant di fi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa di fi def ay ñaan président nee na ñaan ñu fi ñaan ci suba ba fajar yàlla na suñu borom nangu ko daf ko xéewal daf ko njariñ ci biir Sénégal ñuy nuyu bu baax ki nga xam ni mooy le professeur Serigne Diop moom dafa bokk ci kër yàlla dafa def ñun bi ñuy tàmbali li ñëw fii boobu amuñu benn ndombo daal wax naa ni fanweeri édition ak benn loolu yàgg na mais amul gàmm bu ñu ñëw te fekkuñu fi moom fekkuñu ko am na yoo xam ni ñun ñu teew ndax yitte àdduna ak mission mais moom day fàttalikuwu moom daa mu teew suñu borom joxoon ko ay ndombo tànk yu mag ci Sénégal taxawaay rafet mu liggéey ci biir Sénégal liggéey bu sell ba ñépp di ko naw kon professeur ñu ngi lay nuyu sant di nuyu également le président du groupe parlementaire suñu xarit di ay miiru ñing moom it ñëwam tey fii lu ñu rafetlu xam nañ ko bu baax ci taxawaayam ci wetu président Macky sàll ci jàppale ci dëggoo ci fonk li nga xam ni mooy mission biñ ko jox te xam nañ ci dara ñun ñi nga xam ni yàlla dafa def ñu nekk ay ministre kàttanu yàlla volonté président dañuy jaar régulièrement à l'Assemblée nationale ci seen kanam ñoom ak kanamu député yëpp ni le maire de Bambilor le député maire de Bambilor Ngagne Diop di rafetlu kàddu yu mu wax ndax wax na dëgg yàgg nañoo ñëw fii wax naa ko léegi boobu benn doomu tànk amuñ ko Adja Mously Diakhaté député à l'assemblée it ñu ne ñu yàgg nañ nga fee fekk boobu it doomu tànk amagul woon mu mel ni donc lu yàgg dëgg la di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo fi teewal ñoo yor xilaafa gi man ne ko waxe noonu fii ci famille Sëñ Ahmad Gaye di nuyu Sëriñ Cheikh Gaye Pa Ahmad Gaye Sëriñ Maodo nga xam ne moo yor daara di rafet lu baax moom it taxawaayam fii ci daara ji ni ko ciy wétt di nuyu Serigne Moustapha Mbacke xidmatul xadim moom it suñu wëllëre la tawaayam rafetlu nañ ko lool ak ñu mu àndal yëpp doon ay sëtu Serigne Touba nekk fii ci diwaan bi di wax ni ak mu jot ci kàttanu yàlla président yu ñu ñu teewal ko wante am nañu seen Aziz ne di wax Aziz Baye dugg ci programme président ba tudd làmb daj loolu de mën nañ ko am fii te soxlawul sax nga ni daaw courant bi duggul woon na war duggee fii ci commune Tivaouane ñàkk ci commune Jaxaay wante foo dem léegi dëkk yooyu oto yi sàpp nañ ko courant bi dugg na kon nag toppatoo nañu loo xam ni sàpp woon nañ ko bëggoon nañ ko muy président Macky Sall te loolu tax am na ni mu amee fii la amee feneen ndax énergie dafa am lu am solo ci réew réew mënul développé te amul énergie énergie nag courant bi benn pàcc rek la bu énergie amul tailleur bu yor machine am di jaw bu ñëw bu énergie amul ka yor appareil am di opérer ci hôpitaux yi du ko mën a def bu énergie amul information yi war a am ci àddina bi doo ko am kon am na solo loolu la président njëkk rek la fekk xuyu kawaj bu bare bu fi amoon ñu ngi koy fàttaliku délestage en 2011 500 mégawatts mu yokk ci 700 mégawatts ci juróom-ñaari at léegi amatuñu problème production kon sëñ Aziz wax nga dëgg président yi béy bi mooy dem beeg dikk bi ak solo donc infrastructure bi ci gën a xam gën koo xam nag mooy ilaa Touba bi ñuy yóbbu ci dëkk bu sell ilaa Touba bi ñu koy inauguré man mii ci sama wàllu bopp de ba ma jógee sama biro jam ñaajo ndax jam ñaajo fa la ñu ministère yi fukki ministère ak juróom ñu ngi leen jam ñaajo fii solo wuñu balaa jógee ba may egg Touba sama chauffeur dama ne ko waaw tribune bi may seen fan la pour ma egg si nañ Touba dëkk bu sell waxtu ak fukki minute bi ma chronométré laa ko def te xam nañ ni buñ daan dem foofu nag ah daa dañ jël temps bu bare ñetti wax ba ñeent léegi waxtu fukki minute kon infrastructure yi tamit président liggéey na ci ndax fu mu fekk fanweeri kilomètre ak ñaaru autoroute moom loolu ñu liggéey ko ci juróom fukki at ak ñaar ndax Sénégal de 1960 bi am indépendance ba 2012 juróom fukki at ak ñaar fanweeri kilomètre ak ñaar juróom-ñaari at mu tabaxal ñi ñaar téeméeri kilomètre autoroute kooku liggéey la la dëgg bu jógee foofu wax nga ko léegi mbay mi càmm gi napp gi Sénégal dëkku bay la dëkku càmm dëkku napp ginnaaw bu ñu tegree problème courant ak infrastructure ñett yooyu faaw mu dox ci réew pour mu mën a dox mbay mi ku wax ak sa tëraayu bàmmeel xam na ni dox na ndax nañ koy xayma te li am ci gerte bu ñu nee mbay Sénégal nag ni gerte daaw lañu am ci gerte dëgg yàlla bare na 1 million 432 mille tonnes masuñu ko am bi ñu am ci ceeb seen kër yëpp ñawee ni di ko dundee di 2 millions de tonnes li ñu def ci élevage li ñu def ci napp bi ñu dénk nag ñun dama ci jël ñett yëf rek benn bi mooy boroom gaal bu ne boo jënd moteur bu bees léegi dañ la jox 1 million loolu loolu mosul am borom gaal bu nekk ngay jënd moteur bu bees dañ lay jox subvention un million li ñu tabax ci quai de pêche kenn xamul lu mu toll li nga xamante ni def nañ ko tam jàppale nappkat yi ci wàllu financement kenn xamul lu mu toll kon nappkat yi ñoom it am nañu lu ñu mësul am loolu lépp nag buñ ko boolee yow nag yaa ngi tudd PUDC PUDC mooy lan PUDC président moom ci boppam moo ñu ko wax moo ñu ni bi may wër senegal di wut Sénégal en 2008 en 2009 ba 2010 2011 def naa lu mat ñetti yoon le tour du Sénégal daanaa dem ci gox boo xam ni jigéen ñi pour ñu am ndox dañu takk saret mbaam def ci ay bidon dox walla daw lu mat fukki kilomètre fekk teen bu ëpp dix trente ba cinquante mètres di jukki ba seen loxo yi yàqu ñu jël ndox moomu delloowaat seen dëkk soo nga am lu ñu mën a togg ak lu ñu mën a naan mu ni man day bu yàlla defee ma nekk président dinaa fexe ba coono yi am ci àll bi ci kàttanu yàlla ma ko loolu mooy priorité maanaam dem ci dëkk yi amul ndox amuñu courant amuñu yoon mu indil leen ndox indil leen courant indil leen yoon ba nga xamante ni coono yi dina wàññeeku suñu gox bii nag buñ ne courant ak ndox waaw ñu fàttaliku nag ñaari dëkk yu ñu jege bañat ñu mbëtt ak borom droit bii ndox mi des na ba tey dañuy dalal seen xel ndax monsieur le préfet dëkk bi ñu romb sànq bi ñëw ginnaaw Bambilor mooy borom tubaab bi ci topp mooy mbëtt ñu jóge mbëtt lañ ñëw fii ci daaru ngay Tamba ñaari dëkk yooyu ba jag saaw ba mën nañu wax sax ba fii am nañu ay problème ndox mais ñu dalal seen xel gouvernement baa ngi te incha allah dina réglé wu ndax bokk na ci dossiers yi nga xam ni gouvernement bi ñu koy topp njàng mi toppatoo na ko président dama ci joxe ñaari exemple bi njëkk mooy fii ñu ngi fi tabax université bu fanweeri junni étudiant sorewuñu loolu université Amadou Mokhtar Mbow fële ca la ña fay tabax université fanweeri junni étudiant mu tuddee ko université Maolana Cheikh Ibrahima Niass fii ci université it ñun de nekkoon ay étudiant que li ma gis étudiants yi di ko fay pour jëfandikoo lekk bu nekk mu am fukki dërëm nga am ndékki ñaar fukki dërëm nga am añ ñaar fukki dërëm nga am reer bu nekk président Macky Sall moo ko fi ay président jaar nañ fi ku ne def nga loo man wante la mu def day ci wàllu yi ak yeneen wax wax na wax dëgg yàlla benn président def ko néew ma nag bu ñu jàmbaar jéem nañu def nañu kon ku mel noonu buñ ko amee ñu jublu na ci Sénégal lu am solo am solo loolu mooy lan mooy élection présidentielle mm-hmm. élection présidentielle du ñu gulet yàgg Sénégal dafay élection depuis Senghor jaar ci Abdou